ñu ngi leen di nuyu ñu di leen ñaan ci yar ak teggin ak orma ñu ñëpp ñu xam ne ñu ngi ci xadara boo xam ni xadara bu sell lañu ànd ak yar ak teggin doonte xaylala bi jeex na waaye ñu ngi ci kanami kiñ doon defal xaylala ba tey may ñaan nag jigéen ñi ak góor ñi ñun ñëpp rawatina nag sang bii toog te lii ma bëgg a wax dama bëgg ñun ñépp ñu ne pat te it nag dëgg-dëgg war nañ ko mën ndax jigéen ñi waaw jigéen ñi maa ngi leen di ñaan xam naa yéen bu ngeen amee xaalis te amu leen wujju rek wax ji day bari fa tabaarakallaahu damay ñaan ci orma ak yar ak teggin ñun ñëpp ñu bokk ànd ak yar soxna si buñ nee soxna yi kenn dégluwul nag foog ñu ne soxna si pour mu xam ne moom la ñuy wax istajibu lillahi wa li ida daakum lima yuxyikum looloo ñu fi indi ñun ñëpp kii toog yar bii mu toogee ak teggin bii ak orma bii mu toogee waaye ñun ñëpp nañ ko roy muy Cerno Madani bii toog bu Cerno Muntaga Ahmad mii toog nii ànd ak yar ak teggin ak orma mel ni liir buy door a gane àddina waaye nañ roy ci moom te am na loo xam ne nag ku ko def ci xadara sa kanamu sëriñ yàlla dina la sanctionné boo yëgee ak boo yëgul nañ ànd ak yar ci xadara omar ya lañ nekk fii Cheikh Alhaaji Omar léegi alxaaji idrissa wax na ko ñi ko wax ci seeni biir waxtaan bari na li fi cheikh alxaaji omar fuuti yu def ku ko fi génnee dara du ci des ñi fi baax ñépp kum ci taalalul it moo taalal kala taalal wax naa ko ba tey kon nag ñu ngi nuyu mboolem ko fi teew ànd ak di leen ziyaara ziyaara istimdaadin wa tabarrukin wa taalluqin wa tawassulin bi jaahi jaddikum Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti Al Gadawi ñun ci kilifteef lañuy ñuy te incha allahu duñ wéy di dañ ci kilifteef ila yawmi yubaasun te yéenay suñuy kilifa ñu ngi nuyu suñu wayjur wii ci biir. suñu baay suñu xarit suñu soppe di Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Oumar moom mi nga xam ne tey moo ko uuf mboolem ku Cheikh Alhaaji Omar am ci kaw suuf tey waaye uufin wu rafet na uufin woo xam ni moo raw ganaar ak i nenam uufin woo xam ni moo raw ganaar ak i cuucam ndax ganaar li muy néew néew doole boo bëggee laal yi ciw jëm nag ah dina la woon boppam kon Cerno Bachiru uuf bi mu uuf umma islam bi yépp tey sagu kër Cheikh Al la waaye doomam ji taawam bii soppeem bii xaritam bii lépp léegi bi ko Idrissa di wax sama xol dafa sedd ca màkkatal mukarram lu ñuy wax xaadimul xaramayni sharifayni te loolu yàggut te dafa am lu ko sababoon loolu duma ci ñëw waaye ñoom xam nañu ndax jalaalatul malik lañ leen daan wax xëy yonent bi rek yónnee leen benn message bu fort Fahad bun Abdul Aziz ne bu ko kenn waxati jalaalatul malik nañ koy wax xaadimul xaramayni sharifayni kooka mise à pied dal ci koom waaye kii garaat la ci moom nag ni sëñ Tuuba amee xaadimul Moustapha garaat boobu la am tey ci kër Cheikh Oumar muy xaadimul xadratil omariya Cerno Muntaga Cerno eh, Madani Muntaga Ahmad Cheikh Oumar ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay ndokkeel bu la neexoon nga def xadaratul jumaa ne ñokket dem ñibbi ñaar tax na say rakka fi nekk sañ nga ko sa mage mayu la ko sa jotadi mayu la ko wallaay sama xol a set su la neexoon bañ xadara ba ñaan rek nga ne yeewi leen ma ca ko it dañ lay yeewi ci xol bu sedd guy avec fierté ndax ku jur yërëm ku jënd sakkanal dañuy jàpp ne dañ lay sakkanal rek ndax yéen lañ fi dese kat ku yebu ñaanal leen yàlla te sakkanal leen de ndax lii ma gis ci Sénégal yéen a fi des de sama dara kalaas gi rek a fi des yal na ngeen fi yàgg lool nag ku leen jonkonu yal na jaaxaan ku socc bëggaree yal na jàll bu mu yem ci jaal sax yal na bëñam yépp buur yéen a fi des de ndax lii ma gis ci Sénégal mbëggum daraja gi xew ak woote wilaaya gi xew ku gënt ñetti gënt yu neex sax ne min ko ceerno ñetti gënt yu neex sax ceerno cheikh billaay wal kitaab yi léegi dama yéemu ci yàlla ku ñett gënt ñetti gënt yu neex sax ne min ko ceerno wut garaam bu bu rëy kol gu mag ut ñetti xale yu mën a kàcc nag dar la maa ko gënt ci biig ci xadaratul qudsi fekk kàcc rek gëntuñ dara nañu am kilifa loolu laa jublu ci wax ci Thierno Madani jërëjëf te lii may wax billaahi ki ci biir duma jéppi muy Thierno Bachir doomam jii di taawam bii duma jéppi ndax waxtaan nañ barkaati démb maag moom lu yàgg ci téléphone dinaa ci ñëw waaye bi ma waxtaan gu wéy juróom ba noppi laa ko woo téléphone moom Thierno Cheikh Oumar Muntaga Daha Thierno Cheikh Oumar Bachir Muntaga Daha Cheikh Oumar ñu waxtaan lu jege une de temps ci bési tey bii rek ak lu ci jëm sama xol a sedd xam nga lu tax kilifa yu bari bu ñëwee ci jotaay rek eh, ne sama yaram moo xaw a jagadi maa ngi yeewee ko te billaay seen seen yaram mu jagadi yépp patron xamu ko gis nga jotaayu xadaratul juma ak a jafe moo tëj ci taalibe tijaan yi te billaay loo rëy rëy kurus ci tariqa bi te laazim ak wasifa xadratul juma doo ko def doo tus sëriñ si buñ jombale seen bopp xadratul juma buñ jombale seen sëriñ du ëpp xadara sëriñ du ëpp wasifa sëriñ bu ëpp tariqa bi amut su amoon Cheikh Umar nekk ko bu amoon alaaji Malik nekk ko bu amoon sëriñ Babacar si nekk ko bu amoon alaaji Abdou Aziz nekk nekk ko te ñooñoo ñu gënoon miin jàkka yi gën ñoo miin malaanu wasifa yi lu tax ñun xale yi duñ miin gal malaanu wasifa yeeg xadara yi kenn ci ñun tey ngeen baal ma xaq du ñëpp nag waaye jàkka joo dugg ah léegi sax xaw na tane waaye bu njëkk jàkka joo dugg mag ña retraité rek nga fay fekk seen baat ya mënatul a jóg mënatu ñoo wax ca kaw ñooy nodd xale yi nelaw sama compagnie gi nelaw ba yuut dong lañ mën ne sa kurus ba mu rafet sol sa boneka rek da baax daaj laxas sa kurus ci sa loxo di temp ndànk ku la dab ne la taalibe cheikh nga ne wallahi macha allah doo taalibee dara na ñu miinal suñu bopp xadratul juma boo demee ci kashfu li hijab cheikh sukayri moom dong moo ci indi xadratul juma saa falakiya boroom xam-xam yee fi toog rawatina Cerno Madani bii toog saa falakiya moom la indi bu noon saa rek àddina tukki waaye bam ne saa falakiya mooy moyen de une de temps kenn mënu ko xadratul jumaa ci mbooloo fokk mu am waxtu boo demee ca faakihatu tulab bu cheikhul xaaji malik moom saa awa nis la indi bughyatul mustafid kadalik mboolem téere tariqa bi lu tax nag ñun tiijaan yi dangay gis sax li ma gën a métti Cerno Madani dañuy toog ci bunti jàkka yi di waxtaan kat waxtaanu àddina ba mu des 15 minutes ñu door a dugg ci jàkk ña astaghfirullah si la pes laay bëgg yow li nga toogee ci bunti jàkka ji di waxtaan waaye duggal ci biir jàkka ji nga def sa xadratul juma li may wax ñun ñëpp koy dund ma ne ñeme koo wax ak ñàkk ko ñeme wax a fi ne waaye ku romb ci jàkka yi gis ko ñu baal màq grand place lañ def léegi bunti jàkka yi te jàkka du grand place toog fa di jëw rek waaye lan fay toogee di jëw duggal ci biir jàkka ji te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni booy dugg boo duggee ci jàkka feek defoo fa suul adam ñu ngi lay bindal tiyaaba kuy julli mu ne sooy dugg yàlla dafa naan malaayika yi génnee leen bàkkaaram yi téyel ma ko ne na ñu ci sa bàkkaar yépp di la xaar ci bunt bi mu ne soo defee jaamu yàlla bi la yàlla sant te defoo fa benn suul adab ba génn mu ne malaayika yi jël sa bàkkaar yi bëgg la ko delloo mu ne suñ borom ne leen ëppante naag sama jaam ñëw ci sama néeg def sama santaane bay génn ngeen di ko delloo ay bàkkaaram effacé leen ko moo tax mu ne diggante julli ak julli day far bàkkaar kon mbokk yi loolu man suñu mbokk taalibe tiijaan yi laa koy ñaax nañu miin xadara jumaa yi nañu miin géewu wasifa yi nañ ko miin ndax suñuy sëriñ loolu lañ ñu xamaloon bi ci des balaa may ñëw ci Cerno Cheikh Oumar Cerno Madani sa waajur dafa am lu ma frappé ci moom ba léegi duma ko billahi ladi laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum moom lay mujjee ñaanal saa su nekk léegi laa ko mujj def ci tàkkusaan Thierno Mountaga Ahmad amul bés bu ma ko dut ñaanal amul dafa am lu ma frappé ci moom te loolu lay wax pour Sénégal yépp xam ne am kilifa daa am bés ma ñëw di ziyaare si Cheikh El Hadj ci pom bi ma ñëw fekk Thierno Mountaga Ahmad mu ngi ci ruq ba boo duggee ci biir saalu Alaaji Abdu sa ndey am na ruq bu fa nekk sa ndeyjoor falaa fekk Thierno Mountaga toog mel ni xale bu ndaw ma xool gis muy Thierno Mountaga ma ne ah man de du ma ñaañ kon xaaral ma toog nale ma toog ci beneen wet nga toog may di ko xool rek mu ngi yor yetan wi teg ko toog toogi ni xale boo xam ne ma ne waaw ba yàgg ma digg góor gi Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ne Thierno Mountaga Ahmad daf fi nekk wallahi te boobu mu nga ca biir néeg ko ñu ne ko waaw mu ne Thierno Mountaga bu ma defati lii soo ñëwatee yëg lool man Abdou duma dara ci kanami yàlla rawati nag sa maam Cheikh Oumar Thierno boo bëggee lu ma neex daal soo ñëwatee rek yegsil ci biir moo ma gën a daal di ne ko Thierno bismillah mu ne ko mm, mm, mm, dama bëggoon gis sa baat rek maa ngay ñibbi billahi wal kitaabi kenn nettaliwuma génn dem matul dix minutes góor gi ñëwaat li may wax nii maa ko fekkee kenn nettaliwu maa ngi toog ci salle matul dix minutes góor gi ñëwaat ñu toog ba mu yàgg góor gi ne Thierno Mountaga dafa ñëwaat ñu ne waaw mu ne ko carna lu xew mu ne ko dama la namm ci diggante bi te bu fekkoon ne daraja la am na ko bu fekkoon xam-xam la kenn rawu ko ci réew mi xam nga ñaar Serigne Cheikh Tidiane Sy rahmatullah alayhi al maktum moom laa dégg mu wax ko mu ne ñii Sénégal seen wilaya lañ xam waaye xamuñu seen xam-xam ñu ne ko kan ak kan mu ne Serigne Fallou Mbacké wilayaam lañ xam waaye xamuñ xam-xamam mu ne Thierno Saïdou Nourou Tall wilayaam lañ xam waaye xamuñu xam mu ne Thierno Mountaga Ahmad wilayaam lañ xam waaye xamuñu xam-xamam mu ne Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma am lañ xam waaye xamuñu xam-xamam mu ne te moo ne nag min kibaaril ulama keroog nii la ko sëriñ Cheikh ma Tidiane si almaktum waxe te leer na ci téere bi mu defal maamam àddina bi yëpp soxla woon ko mu dajale fépp fu Cheikh El Hadj Omar Fouti jaar ci xam-xam bu leer bu set wecc moom Thierno Mountaga Ahmad bind ko ba mu leer bàyyil ñu ko fi dem wuy ji boromam kon Thierno ma daal ni jërëjëf billaay bu ma déggoon tukulóor tey nga xam dinaa la làkk tukulóor yoo xam mu ngi nii jawaahir war durar fii siirati Cheikh Al Fuuti mu ngi nii bi muy door sotti ku ñuy wax Al Hadj Masilla Kan moo ma ci baaxee woon ca Pikine te nii mu ko defee Cerno Madani su ma fenut àjjuma bi paase nii nga ko defee ca HLM dama ñëw ñu ne ma ñëw na ba dem ca góor gi Ahmad Thiam. ca samedi balaa ñëw ñu ne ma fa ngay waxtaan waxtaan wu rëy ci àjjuma ba fii senegal li Alaaji Abdou daan wax de mu ne benn ngay timis wala ngay fajar wala mu ne benn ngay timis wala tisbaar mu ne fokk ñu biral la wala ñu yellul mu ne boo amee daraja wala nga am xam-xam yaay tisbaar loo def bu juunoo ci ruq yi la ñuy wéet di la jëw naan moom kat moo cim mu ne waaye boo amul daraja amoo xam-xam ca marché ak mbedd ma la ñuy taxaw naan du dara kon taal jërëjëf wax ji li muy bari bari dama lay wan ne billaahi sag nga ci tariqa bi sag nga ci kër Cheikh Oumar sag nga ci suñu baay bii te amuñu ku dul moom muy Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Oumar li ma gën a neex nag sama rakk jële sës man rëkk du ma rëkk muy Cheikh El Hadj Oumar toog bu Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Oumar ni mu toppee ci sa ginnaaw ommatu yàlla bu ci cat tab bi yàlla bu ci seytaane am yoon yàlla na nga ko boot bootin wa gën a rafet ci daraje yonent bi sa ngoon fii la ñuy yenn ku la yow mi waaye juumut nag moom it ndax lu ñëpp di ut bu ko yàlla tegee ci sa loxo danga caa war a góor góorgóorlu kon juumul li muy def yépp yàlla dina ko ko fay ndax kuy root di sotti ci ndaalu bënnul bu feesee di nga xam ne ndaali fees te Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti ndaalam du bënn mukk mosul bënn te du bënn ila yawmil qiyaamati li Chérif Maamel wax léegi foofu lay jeexalee xam nga lu tax dama bëgg ñun ñëpp ñu am kilifa Cerno Cheikh ma keroog daf ma ni ajjuma ba daal dama bëgg na yàlla we du yaa wax loolu mu ne ma Chérif Ibrahima lépp ci sa loxo lañ ko teg waaye dama bëgg mu yàlla we de responsabilité boobu nag moo tax ma rey ci sama bopp te it nag lu toll ni xadaratul juma dafa war a yàlla we kon incha allah fii laay joxe déclaration bu déwén bi le 20 lay tombel le 20 le 21 décembre 1999 ñun ñëpp ñu dajewaat fii incha allah jàpp naa bu déwén bi mille 2000 2019 boobu man xaw ma lu xew man dama hors or antenne laa nekk déwén le 20 décembre 2019 incha allah la ñuy dajewaat fii muy àjjuma ah mu ne ziyaar bii bii mu ne du ziyaaraam sama ziyaara la ndax mu ne sama ziyaara beneen di ñëw le 31 décembre moom moom la moom loolu àddina bi yépp nañ ko dégg ndax way juram di suñu way jur ah mu ne man may taawu Cerno Bachiru Cerno Cheikh Oumar Bachiru Muntaga daaxa lay jottali mu ne ci jëf ak dëggu ak dëggu ci li ñu gis di ko seede di ko seede Cerno Bachir nag su gisee Chérif Ibrahima day tàqali ko ak sago mu ne loolu moom Cerno Cheikh Oumar moo ko seede mu ne ziyaar bii lu ca baax man lu ca yàq mana a ziyaar mbale lu ca baax moom Cerno la Cheikh Oumar lu ca yàqu mooma danga wax rek li Serigne Mbaye Mansour ñàkk caaxaan mii di wax xalif général de Tidiane dafa am benn jotaay bu mu dem wax ba yeggal ne fii ma toog nag sama papa ma fi yónni Alaaji Abdoul Aziz lu ma fi wax dem jub moom la lu ma fi wax te jubut mooma nii la ko waxee keroog te yaakaar naa mu ngi fii yàlla yàlla dolli fanam te kenn du ko weddi ñu ne ko waaw mu ne waaw moom moo ma seet ne ma sëriñ Babacar demal ma ca jotaay ba moo ma doyloo kon lu fi baax mooma lu fi yàqu mooma ndax moo ma doyloo ma dem ñu ne ko si dara yàqu fii lépp a baax kon noo ma daal di li may jeexalee sama kàddu daal Cerno Cheikh Omar ci sa ndigal li nga ma santoon moo di nañu am kilifa maa ngi ñaan Sénégal billahi dama koy waat wallahi benn rek doyoon na billahi rek doyoon na waaye ñetti yëpp lay boole billahi wallahi tallahi ku amul kilifa doo dem ci lu mën doon nag ku amul kilifa doo dem te wolof nee na ku amul kilifa jinne di sa kilifa te ku jinne nekk sa kilifa bu yàggee ñu lay tàccul ngay fecc ci mbedd mi nañu am kilifa li Chérif Mamel wax léegi mbërum làmb bu ñemee taxaw na ci làmb lañ ma ngéntee te ku mbëreel daan la nañu am kilifa te sa kilifa doo ko jiitu ku am kilifa jëlal sa nopp jox ko su la nee waaw neel waaw la alaaji tiijaan ñang jamono jàppuma lool nag aw ma dara lu ma ziyaare waaye as xasida sii de maa ko defoon ci yow nee jàng xasida bi ba xasida bi jeex mu ne sëñ Babacar ne ëskey lii de ku ko waxoon ku amul dara ca yàlla it dana seet lum la defal waxuma la ak man Babacar mii nga xam ne li yàlla am man la ko dënk loo bëggoon nee naa laaj ci jaar ne ma ne parti ne ko màkka laa bëgg a dem mu ne ma moo xanaa ay màkka keroog bi mu ma koy nettali ca ndar daf ma ne maa ngi ci sama ñaar fukki yoon ak ñaar te lii 88 la ma ko nettali woon ca dundaat na ay at door génn àddina lu ko ko may am kilifa moo ma wax ci gémmiñam moom ab laaj alaaji Tijaan ne ma ba may yëggee ca sëñ Babacar ba mu wax ma li ma wax dama ne ko si bés ni tey jox naa la sama bopp boo nee wii ma ne wii boo nee noo ma ne noo boo nee wii noo ma ne wii noo noonu la ñuy ànd ak kilifa waaye léegi da ngay ànd ak kilifa di déglu sa bopp ci moom Cerno Madani bu la digalee lu dëppoowul ak sa bakkan bi boo weetee naan waaw moom dafa marabu daal te buñ meree kat duñ wax sëriñ bi duñ wax cerno non mara non Mara daal dafay déconné quoi Mara moom foog na ne moo ma gën a naan niite nekkatul si sëriñ wax dëgg yàlla maa la ko wax nag Thierno moom xam naa du ni ci biti ba xam li gars yi di wax gis nga buñ meree dootoo di dootoo dégg Thierno bu dee shérif bi dootul dégg shérif xam nga lu ñuy wax waaye naar bi day fo rek billaay wal nit ñi jikko yi moo yàqu innama al umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhumu zahabu yonent bi bi ko yàlla di tagg ci jikko la ko tagg wa innaka la ala xuluqin azim bàyyi fi abdul muttalib bàyyi fi abdullahi bàyyi fi hashim ibnu mana bàyyi fi ñëpp tagg ko ci jikko ñun nag léegi ci lu ñuy taggante alal ju bari ndombol tànk yooyu baax na waaye jikko ju rafet moo koy kulóor kon Cerno Cheikh bés bi yal na sax maa ngi gis léegi muy cinquième édition yal ñu dem ci mbaaxu yàlla ñaanuma leen ko nag de Cerno Madani moom ñaan naa ko ko waaye ñi ci des maak sama rakk ak ñëpp laa ci boole ñaanuma leen ko xam nga ku ma koy ñaan yàlla damay bañ ñu naan yii Chérif Ibrahima bi moom dafa xër trop dafa am benn tudd nga baal ma Cerno Alaaji Abdou Aziz ñëw ci tudd ma tuddal nit ki doomam be noppi dal di ne yàlla nañu yàlla may ñu dund téeméeri at yu teg am ku xaw a ree tuuti alaaji Abdu ko moo ni ñaanuma la ko de yàlla laa ko ñaan xam naa ne yow amoo ko ci la waxe mu ne gis naa génn góor fii ci Mali dund na ñeenti téeméer at ak juróom fukk te ay bëñam sax rotu mu ne man Abdou dem naa ba ko am naa wëllëre bu ñuy wax alxaaji Omar Badiane mu ngi fii ci Parcelles Assainies deewul mu ngi fii dem 84 bi muy dem di ziyaare ji góor gi dafa yegg ñu ne ko góor gi dafa dem ca tool ya 1984 góor gi toog ba dara desut lu dul midi mu yoru yatam woyof di sukkoote di ñëw nee na bi mu ñëwee ba yegg si di recevoir laax su tuuti nag la lekk nee di recevoir bi mu yegg si mu ne ko doom foo jógee mu ne ko Sénégal mu ne ko mbaa am nay nitu yàlla mu ne ko waaw am na de mu ne ko ñoo ca xam mu ne ko am na ko ñuy wax Cheikh Alhaji Omar déedéet mu ne ko am na ko ñuy wax maam borom Touba fekkeewuma ko am na ko ñuy wax Alhaji euh, malik fekkeewuma ko am na ko ñuy wax maam Abdoulaye Niass fekkeewuma ko am na ko ñuy wax euh, maam Boukounta fekkeewuma ko sëñ Babacar si fekkee naa ko waaye dun ñu waaye yàlla nañu toog ba di def cinquième édition te ñun ñëpp ñu fekkee ko suñu mag ju baax ji Cerno Madani yor yetam mu woyof rek ànd ak Cerno Chérif mii nga xam ne ku ko miin miin na ko ci TFM mu ànd ak moom ak ñii mu àndal sukkootu sukkootu bu woyof ñëw toog fii gisanteeg ñun waxanteeg ñun na ko Alaaji Abdou Aziz daan defee ñaanal ñu yàlla dugg ni nuyu baayam ziyaare ko génnaat dem yàlla ko yàlla def ci sa barke baay bu baax ba sa barke maam yu baax yi ci jeexal sa maam pour tafsir shérif jox la kàddu bi déwén ñun ñëpp nañ xam ne le 20 décembre mooy fii ajjuma samedi ba mooy comme samedi suba bi di réception ñun ñëpp nañ bàyyi xel bés boobu te ñun ñëpp ñu préparé ko la ma waxoon waa xadara bi jërë ngeen jëf su ngeen di ñëw yéen ñëpp na ngeen sol lu weex ndax ajjuma jee tax bi ñuy ñëw bokk na ci suñu biir soxna asiyatu si bu cheikhul haaji malik si bu seydi mouhamadul moustapha si jamil bu sëriñ babacar si mu nga ne ci jigéen ña toog fa tabarakallahu ak kilifa yi ma àndal ñëw bokk na ci imam ahmad si ak imam si ak alhaaji malik diop jógee ba Thiès alhaaji saaxo ak kilifa yu bari maa ngi ànd ak ñoom waaye cam na ma daal daal ci jeexal góor gi yee ko nettali woon Thierno Bachir pour wane kilifteef rek laa ci jublu mu ne dafa am bés fekk maak moom ñuy waxtaan ci am kilifa mu ne ma Chérif Ibrahima mu may dégg mu ne dafa am bés sama baay bàyyi Thierno Saïdou Nourou mu ne moo ko ko nettali mu ne mu ngi ànd alxaaji Ibrahima ñas bàyyi mu ne ànd yeneen kilifa mu ne ñu dem ba génn Kaolack mu ne góor gi ne ku ngeen di seeti mu ne Thierno Seydou ne ko dañuy seeti góor gi Zakaria Barta xoolal ñi ànd kenn ku demal na tukkal àddina bu doon daraja rek Thierno Seydou Nourou kenn ëppalewu ko bu dee xam-xam kenn ëppalewu ko bu dee wilaaye kenn ëppalewu ko Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass kadalika ah waaye teewul dégg nañ seen moromu nitu yàlla bu yàlla cëral ñu jóg di ko seeti li wajihillaay nee na bi ñu yeggee góor gi Zakaria Patta ne ah, man mi ngeen seet si day xeebu naa lool ci yàlla yéen ngeen ëpp ma daraja fuuf lu ngeen di ut si ci man ñu ne ko yàlla ji ñu dégg ci yow gis ko ci yow lañuy ñuy seet si ci yaw ndax yëg nañ ne yàllaa ngi ci yow mu ne ah lii de rëy na ci man ba bu rey nit daganoon danaa rey sama njaboot gi yëpp terale leen waaye awma lu ëpp teraanga nag jazakumullahu xayran dal di ne leen ah ngeen baal ma am na lu ma leen bëgg a teralee rek xam naa ne sax yéena ma ko ëppale yéena ma ci mën fuuf waaye sama xol a sedd ma bëgg rek teralee leen ko ngeen may ma ko mu ne Cerno Sa Alaaji Cerno Saydu Nuuru ne ko bismillah mu ne ñetti ñeenti baat la wax ci ñeenti baaraamam yi nganam nganam nganam ñeenti yoon ne nii loxo bi mu ne kaaba gi ne dang ci seen kanam mu ne ziyaare leen Cerno Bachiroo ma nettali mu ngi nii ci biir néeg bi di ma dégg nee ñu ziyaar mu ne doy na ñu ne ko waaw kañ doy na kañ nee na mu defaat ko yoon ci baaraamam yi nganam nganam nganam ñeenti yoon ne nii kaaba gi dem te Thierno Zakaria partage boo ko doon wax ñi ko xam fii bariwul xam nga loo ciy déggee li Alaaji Abdou Aziz waxoon rek bu fekkee ne balaa ngaa ormal kenn xam mooy kan mu ne matatu ko mu ne na nga def koo gis nga ormal te Sénégal na ormal fi bëgg a jeex léegi te buy jeex àddina tukki nañu ormal suñu kilifa yi nañ leen wet nañ leen respecté léegi koo tudd nga gis ku dugg ci internet saaga ba xolam sedd amatul kilifa diine amatul kilifa aada koo tudd ñu saaga ko mel ni réew mi kenn baaxatul te yàlla yónni wax yonent bi ci xadisul qudsi ne ko man aadaani waliyan faqad aadantuhu bil harbi Moustapha Guèye nii ci rajo bi laa daan dégg mu ne ku yàlla attaqué guerre nag boo mënoon mbedd lu mu sóobu nga abal ko ko te seeti meneen mbedd te yàlla wax yonent bi ne ko waxal ma leen ku ma noonul benn wali man yàlla attaqué naa la guerre te ñun nag suñ wali yi rek la ñuy xas kon alaaji tafsir Chérif Mamin yéen laa doon jàppale rek waaye man awma ci kaddu kii moo bëggal sama xol muy ma Madani Ahmad Muntaga Ahmad moo sedd sama xol ci jotaayam bu rafet bii te maa ngi lay ñaan Thierno la ma waxoon Thierno sëñ Moustapha Sy responsable moral ca Grand Théâtre moom laa lay ñaanaat rek ci yar ci orma ci teggin ci wàcc ci suuf ci torox na ngi lay ñaan nii nga ñu ko defale bu déwénee nga ñëw defaateel na ñoom ñii jiiteel ñu lépp ci sa toogaay bu njëkk bi may nga ma ko taal may nga ma ko taal waaw kañ alhamdulilahi rabbil alamin kon nag seedeel ne ñun ñëpp bég nañ Cerno Cheikh nag yow lay daane ne am Idrissa lii nga defal sa bàyyi la ma waxoon Moustapha sëñ Moustapha responsable moral laa lay wax lii nga defal sa baay bii ku ko defal sa baay boo amuloon dara ci yàlla it dina la defal dara waxuma laak sa baay bii nga xam ne tey minal axtar bokk na ci xut buy ŋànk jamono tey nga defal ko lu toll nii nga yaakaar ne yàlla du la ko fay dina la ko fay ci ñaari anam dina la ko fay ndax doom nga waaye dina la ko fay ndax jëndee nga ndoom gi ak taalibe waaye na ñëpp roy ci yow royukaay nga de ba pare effacé wu mu nga nële ci gannaaw bëggul feeñ ci dara bëggul kenn gis ko ci dara day def lépp avec désintéressé wu ca ba set wecc na kon taal yal na nga gudd fan Thierno Cheikh yal na la yàlla defal lu kowee sa njorte sa digganteeg sa wéy bi sa suñu bàyyi bu baax bii nag yàlla na fi toog bañ ne ah léegi de ren la am atu alaaji sa Saydu Nuuru yi ñu ne nañ ko ko nañ ko ko feeteel buñ ko feetee ba noppi nag ñun ñëpp ñu waat ne yàlla dollil ko ci yeneen fukk ak ñu xool nag ba ca kanam yàlla na ko yàlla def te fu mu geestu nag gis ñu wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tabaarakallahu Ibrahima Aydara wala Aydara xol yëpp sedd na waaye nag jox micro bi Tafsir Abdourahmane Gaye nga xam ni ku ko gis miin ko ci Rasulullahi miin ko ci Cheikh Seydil Hadji Malick miin ko ci mag ñu baax ñi waaye karim mooy téere yàlla bi di ko dalal bu baax di kontaan tey nag mbir mi dafa laal daaw mais suba la cérémonie officielle bi waaye da nga yaakaar mbir mi tey la da ngeen xam ni suba lay lépp ngeen xam ni dëgg la Ibrahima Aïdara Thierno Madani Mountakha Ahmed ah seen rakk seen xarit Ceerno Cheikh bu Ceerno Hamdul Bachir Muntaqa Taha bu Cheikh Alhaji Omar nee na moom de xolam sedd mooy am na mag ñu mot a mag am na mag ñu mën boot seen rakk ba roggandiku am na mag yoo xam ni mën nañu balal seen rakk yoon wi ba mu set wett dingi dëkk yi ak xaaxaam yi ak dëj yi ak lépp luy faxasal doomu adama am na ay mag yooyu kon li muy ñaan mawlaana tabaraka wa taala yàlla mi nga xam ni moo am pay te lépp lu def lu waay def boppam rek nga ko defal te yàlla tax yàlla na leen yàlla kilifa kat dana ñaanal doom waaye doom it dina ñaanal kilifa ni nga ko ñaanalee Serigne Ibrahima Thierno Madani ñaanalee ko noonu moom it mu ngi delluwaat di yëkkati ay kàddoom ci seen kanam di toroxlu seen kanam di ñaan yàlla yow it yal na leen fi yàlla bàyyi ngeen dund ak yu bari te yàgg leen jiite te lépp lu ñuy defar ci biir diine bi ak tariqa bi ak bokk gi ngeen defandoo ko ci seen ñaari loxo ngeen yàgg seen kanam Thierno Abdoul Madani nee na xam na ni amoo jot xam na ni jamono ji soxla nañ la ndax yaa ngi ci biir yaa ngi ci biti sa baay Thierno Mountakha Ahmed li mu yenu woon li mu yoroon lépp ci yow la ko yennee ko sa maam Thierno lu mu yoroon yow ko batale boole sax yenu yi nga yenu muy ñetti yenu kon nag amoo benn jot